Euh, de plus en plus li nga xam nekk moo di euh, Macky Sall fii nga xam ni itam jaax na fa wala kon fii na nga xam ni itam dem na fa amaan na ni euh, préoccupation yi benn la ñu fexe ba daal di ko fay li na xam nekk moo di jëlee concrètement waa mais xam nga pétition moom déjà c'est quelque sos qui est encadré par par la loi notamment pour par les lois universelles mm. mooy yenn convention yeeg yenn charte yi mm. man en tout cas c'est un droit mm. bu nga xamante ni une possibilité du moins ba nga xamante ni ubbil nañ ko ay citoyens ñu mën ko mën fa jaarale la nga xamante ni euh, seen désaccord la vis-à-vis ak quelque chose. donc nag ñu mën nañ jàpp ni en principe. loolu hmm. lu yoon nangu la. Hmm. en quelque sorte. maintenant le président Macky Sall aussi lii du bett kenn si moom. Hmm. parce que tout simplement boo xoolee ñu bëree bëree bëri euh, mere nañ ko. par rapport ak ces derniers moment ci nguur gi bi mu fi nekkee ak na nga xamante noonu la dëkk bi demee woon ci wàllum démocratie gis ni liberté yu bëree bëri dañ ko bafoué gis li fi aw aw am meurtrier ak incident mm. yeeg tout cela mm. mm. ñëpp jàpp ni am na une responsabilité particulière boo xamante ni moom daf ko ci am donc nag ku ñu ne responsabilité yooyu dafa tegu sa sa sa kaw jàpp naa ni balaa ñu di la confier ay yeneen responsabilité mm. surtout des responsabilité internationales aussi mm. responsabilité yoo xamante nañ ko sa kaw loolu dafa war a leer ba pare parce que jusque là jusque là rien euh, rien rien n'a été nga jàpp dara clairagul parce que boo xoolee même au niveau de la cour pénale xam nga a des documents qui sont là-bas tey am na un dossier bu nga xamante ni jébal nañ ko mm. maintenant y a une juridiction parisienne également bu nga xamante ni mi ngi bëgg a examiner ay dossier président Macky Sall donc yooyu yëpp nekk ay mbir yoo xamante ni fi mu toll nii dafa gàllankooru jëm ci kawam donte nag dara ubbeekoogul ci kawam mais daal ku ñu joxoñ baaraam tuuma la ku hmm. nga xamante ni la en quelque sorte également ni mu yoree woon nguur gi ñu bëree bëri hmm. rafetluñ ko te boo xoolee même la communauté internationale hmm. ni Macky Sall doon gestionner les conflits politiques yàgg nañ ko dénoncer yàgg nañ ci wane seen naqar surtout nag ñi nga xamante ni c'est des institutions spécialisées en matière du droit de l'homme yooyu yàgg nañ taxaw di ko ŋàññi ak na nga mm. xamante ni noonu la doon mm. doxalee kon ta nga xam ne ñoo xam ñoo déposé euh, pétition ba mm. yoon may na leen ko pétition ba nag lañ leen laaj ci nombre de signature bu ñu ko amee automatiquement exactement voilà automatiquement kon pétition boobu dafa war a euh, dafa war a dafa war a dafa dafa war a am effet immédiat waaw kon jàpp naa ni daal euh, attendons de voir la suite des événements. mi ngi noonu exactement donc Macky Sall jamono ji nag bokkatul euh, si li nga xam nekk di la conférence africaine bu Colombia mu dinañ ko daal di jëlee nag exactement les explications yi nga xam ni moom ñoom la organisateur bi euh, daal di joxe mooy ki nga xam nekk moo di Macky Sall li mu fi def fii si réew mi ñoom daal si jot bëgguñu benn yoon mu daal di wéy ba tey daal di nekk si boobu dañoo xam nekk moo di l' organisation kàddu nag Oumy Diallo moo ko daal di yor mu daal a yaatoo sëñ na xam ni itam ñoo daal di signé boobu de pétition mi daal rafetlu bu baax a baax seen ne que mu di Macky Sall daal di koy dàq foofu si daanu que euh, conférence africaine bu li nga xam ne que Colombia tout a commencé lorsque cette sénégalaise mu daal di bind benn que euh, lettre euh, président intérimaire bu université Colombia di ki xam ne que madame Catherine moom itam sàkk woon pour ñu daal di fa ki nga xam ne moo di Macky mu daal koy bindoon ni événement bu daal di ñeel le octobre bi ñu daal di jëmani cette requête boobu nag mu daal di accompagné par une pétition bi nga xam ne itam moom la um mu daal di dugal mu daal li ñu daal di signé boobu de li nga xam di document l'objectif de ces initiatives mooy empêché woon ki nga xam ne nekk mu daal nekk l'orateur principal boobu da li nga xam nekk mu di conférence il est temps d'agir Macky Sall ne doit pas être l'orateur principal parce que su loolu dugul woon si boobu de euh, conférence Macky moo yor li nga xam nekk mu di kaddu gi donc nag mi ngi noonu Macky Sall mujjewul participer si li nga xam nekk mu di euh, sommet bi nga xam ni itam ñu koy amal foofu saanu euh, Colombie ñeel dëkk Afrique yi nga xam ni itam ñoo ko daal di gën a fasantiku exactement ma ni kon aujourd'hui mu ne jàpp ni Serigne Macky mhm. est dans hauteur de tout le monde exactement euh, fépp fi nga xam ni itam aw na fa wala kon fépp fi nga xam ni itam jaax na fa da nga koy bàyyi xel waaye itam fexe ba nu fa daal di jëlee moo tax ñu ne sénégalais képp ku leen lebal di leen lebal lu baax. waaw mais xam nga xam nga xam nga xam nga Fallou. Hmm. lii lépp ça ne surprend personne. parce que wax nga ko Macky fépp fu mu jaar aussi tu sens que ni a des gens mécontents. yu nga xamante ni wax naa la ko léegi. Hmm. mënuñu ko xool xool bu yegg tout récemment gis nga léegi li ko dal ci aéroport Maroc bi. Mm, Maroc bi yaa une yaa bu ko interpellé woon par rapport ak li fi xewoon. Mm, si xale yu ñu rawoon. xale yi ñu rayoon du moins. ne ko suñu doom yi nga rey foo si toll et cetera tout ça. maintenant cette dame loolu dame boobu ñaata dame wala ñaata nit yu mel ni moom ñoo nekk ci àdduna bi di sentir la même chose bëgg ko wax président Macky Sall amuñu opportunité pour mën ko ko wax. léegi nag loolu mooy waral des fois ñu koy manifester à travers des pétitions. Hmm. tu as vu. Hmm. Macky moom cela ne surprend guère personne te institutions internationale yi c'est des institutions yoo xamante ne dañu respecter le droit surtout le droit international. Hmm. pétition dañ lay laaj nombre de signature buñ ko matalee ça doit être automatique jeex na. mais su ñu pétition bu ñu nekkoon fii Sénégal. waaw fan si toolu Serigne ñoom ah, bu nga sëy bi ñu lancé woon. def luy continuer. non parce que Sénégal xam nga Sénégal li fi ne mooy. problème bi mooy des fois boo lancé même yenn genre pétition yi sax xam nga des fois sentiment émotion bi. mooy li nga ma fi doon wax benn jour. Hmm. bu ñu lancé track de kii euh, bu ñu lancé reddition des comptes bi bu ñu dawalee benn yoon ñaari yoon di nga gis tout récemment am ñoo xamante ni ñoo ko bëggoon. Hmm. mais boo moytuwul yërmande dina leen dugg. Hmm. bañ ne boo moytuwul nguur gi dañuy fayantu loolu moo am Sénégal. boo lancé ce genre de pétition la y a des yu nga xamante ni duñ ko signé. tu mais boo xoolee tey différence bi am. par rapport ak l'opinion internationale c'est mm. diamétralement opposé mm. c'est des institutions sérieuses yoo xamante ni bu dee li ngay def conformé wu na ak droit ak yoon automatiquement dañ dañ dañ lay jox sa ak ak yelleef maintenant nag attendons de voir comme je l'ai dit attendons de voir la suite des événements mm. en tout cas man ça ne surprend pas du tout ça ne me surprend pas avec Macky Sall euh, li nga xam ne que moo di euh, Macky Sall ak haute euh, juridiction bi na xam ni itam no ji amaan na ni ñu koy daal di waaj a taxawal jëm si wàllu wuri alors tout à fait autre chose dans ce point de lecture mbokk mi leen fàttali yéen en direct sur les antennes de Sénégal 5 TV partagez like et parvenez live bi dina xam ni itam jot xam la jotaguñu fa seen daal di wala mën a topp si nga xam ne